bismillah rahmaan rahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk yi ginnaaw bu ñuy sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa am benn audio bu ma envoyé audio boobu ki ko def moom mooy oustaz Hady Niass te muy wax télé Walfadjri Hady Niass bi def na trois minutes et mu ci saxal seen wirdu boobu di salaatul fatixe ngeneel yi nga xam ni am na ko di ay ngeneel yoo xam ni doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ay nit di wax la rek doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna yonente bi fu mu waxee fu mu tuddee ngeneel yooyu doo ko fekk ci saxaaba yi mooy ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaroon jàngal leen doo fekk fu ñu wirdee salaatul faati wala di wax ngeneelam doo fekk taabiin yi fu ñu waxee ngeneeli doo fekk atbaa yi du ñoom imaam Malik bi nga xam ne ci ngiiram lañ tënk amul fenn fuñ la ne wax na ci ay ngeneelu salaatul faatixi wala sax di digle ñu wird wirdu salaatul faatixi léegi nag moom haadi jas dafa bëgg a saxal ay ngeneel ci salaatul faatixi mu wax ci audiowam bi mu ne dafa am ay mbindeef yoo xam ni ñu nga ca kaw arash arash mooy bërëb bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala fa la yemoo ca kawam arash mu nga nekk ca kaw juróom-ñaareelu asamaan borom bi mu nga yemoo ca kawam nekk ca kawam moom nee na nag suuf soosu di ardu shamsama la ko tuddee xaw ma shamsama la xaw ma samsama laa adri chine wala siin ndax waxam leerul foofu mu suuf si mu ngi tudd ardu ardu shamsama wala samsama mu ne suuf sa mu nga nekk ca kaw arsh loolu njëkk a wax yàlla am na benn suuf bu ñu tuddee ardu samsamatu suuf la soo xam ne mang ca kawi kawi arash suuf soosa ba ko yàlla bindee ak moo jiitu lim mu njëkk bind aadama lu ma téeméeri junnee xat suuf soosa am na ay mbindeef yu fa nekk feesal ko amee melow doomu aadama waaye ci ay rawxaan lañ ñooña nag dañ leen a bind dara du seen liggéey ñoom ñooñu lu jàng salaatul faatiha rek mooy seen liggéey. nee na foofu ay mbindaafoon ñu nga fa yoo xam ni ay jëmmi doomu aadama la ñuy am waaye ay rawxaan lañ. luñ koy njëkk a foofu rek mooy balaa loolu nee na suuf soosu noonu nekk ca kaw arash ay mbindaafoo nekk fa yor ay jëmmi doomu aadama mu ne ñooñu mbindaafoon yooyu dañuy jàng salaatul faatihi ñoom ñëpp mu ne yow boo jàngee salaatul faatihi yow nit ki boo ko jàngee benn yoon day mel ni yow ñii ñëpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kaw arash muy suuf soosu di sam-sama ñoom ñëpp kenn ci ñoom ku ne bu ñu jàngee salaatul fatih yow nga jàng ko benn yoon rek day tolloog yiw ba day tolloog ñaka ñooñu comme nuñ ko jàngee ñooñu ñëpp maanaam ñii nga xamante ne ñoom ñoo jàng salaatul fatiha nekk ca kaw suuf soosu nekk ca kaw arash ñoom ñëpp ku nekk day jàng salaatul fatiha léegi yow boo jàngee salaatul fatiha yow exemple man alpha mi su ma su ma jàngee salaatul fatiha dañ may jox yiwu ñooñu ñëpp jàng salaatul fatiha yiw boobu laay am. moo tax yow boo jàngee salaatul fatiha dana xam lu yëkkat salaatul fatiha yi mu naaw ca yaatuwaayu suusa ak gudd ñaayam ba bam toll lu toll noonu lay naaw ba pare. lu toll noona ak la nekk lépp di jàng salaatul faatiha ñi boole ko ful ko lu toll noona yow mi ko jàng wenn yoon xam nga loola. Euh, ñu tontu ko ñu ne ko Adi Niass nee nga suuf soosu ma nga ca kaw arash fa njëkk a daanoo moo gis nga nit wallahi li ngay wax soo koy wax te tegoo ko ci alquran ak sunna ay ñoom mi rek ngay def nee na suuf soosu noonu. ma nga ca kaw arash te ñii di jàng salaatul fatiha yor ay jëmmi doomu aadama fekk ay rawxaan lañ ci suuf soosu la nekk mooy suuf si nga xam ne mu nga ca kaw arash yaa haadi ñas indi ñu tegtal ci alquran ak sunna buy wane ni kaw arash am na yeneen mbindeef yu fa nekk lu bokk ak yàlla te yàlla du mbindeef yàlla lan la wax arrahmanu ala al arshi istawa nee na yàlla ma nga ca kaw arash yamoo fa comme su fekkee moom aadi ñas nee na ca kaw arash am na yeneen mbindeef yu fa nekk comme aadi ñas nee na comme am na ñu gën a kawe yàlla wala am na ñu tolloog yàlla ca kaweem yàlla moo gën a kawe lépp yàlla fa mu nekk ca kaw arash amul lenn lu ko fay fekk si yàlla moo gën a kawele comme bu fekkee nee na am na yeneen mbindeef yi nekk ci kaw arash comme aada saxal na ni am na ñu gën a kawe yàlla te loolu ab kéefër la loolu ab kéefër la gëm-gëm boobu su fekkee moom la gëm loolu ab kéefër la ma moom yéefër la de wax ji rek kéefër la bu fekkee nag loolu la gëm moom fas ko di ko jaamoo yàlla loolu moom su fekkee xamul woon na tuub te xam ni wax ju garaaw la wax yàlla nee na arrahmaanu ala al arshi stawa yonente bi salaa sallam wax ci xadis mu ne firdaws ala al janna firdaws moo gën a kawe biir aljanna mooy dëkkuwaay bu gën a kawe biir aljanna mu ne wa fawqa al firdaws arshu rahman ca kaw firdaws nag la fa nekk mooy arshu borom bi mu ne wallahu fawqa al arsh mu ne yàlla nag ma nga ca kaw arsh comme aadiñas alquran ak xadiisu yonante bi lu ñu xamal mooy ca kaw arsh kenn moo fa nekk muy yàlla amul benn tegtal ci alquran ak sunna buy wane ni ca kaw arsh am na leneen la fa nekk am na yeneen mbindeef ya fa nekk lu bokkut ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu xadis la ñu indil ko waxu borom xam-xam yi dëppoo bu ñu dëppoo ni yàlla mom mo nek ci kaw arash amul kenn ku tuddu lenen amul kenn ku tuddu lenen comme lu adi ñess wax di amul benn borom xam-xam bu ko tuddu ibnu abdul bar abu nuaym al awza'i al hafiz ibnu abdul bar ñom ñep al imam daarami ñom ñep dañu tukhal dëppoowu borom xam-xam yi ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo nekk kaw arash amul dara lu ko féete kaw wa anta zaahiru fa laysa fawqaka shay yéen salaatu loolu la wax nee yàlla yaay ku gën a kawe yéen salaatu salaam firi na ko anta zaahiru mooy lan mooy ku gën a kawe mu ne fa laysa fawqaka shay amul dara lu la féete kaw comme aadi ña saxal na ni imma am na loo xamante ni moo gën a féete kaw yàlla. te bu waxee loolu weddi na xadis bi ndax yonent bi salaa moo ne anta zaahiru fa laysa fawqaka shay yaa gën a kawe amul lenn lu la gën a kawe yow yàlla comme bu ne am na leneen yeneen i mbindee fi nekk kaw arash comme saxal na ni am na leneen lu gën a kawe yàlla wala imma am na leneen loo xam ne moo tolloog yàlla ca kawe te yàlla kaweem tolloowu ci ak kenn moom borom bi subhaanahu wa taala boo ne yàlla am na ku mu tolleel ci kawe rek yow def na shirk comme lii ay neen la yoo xamante ni aada ñas wax na ko te amul ci benn preuve amul benn borom xam-xam islaam tàmbalee ci yonent bi ba ci saxaaba yi Abu Bakar Omar Ousmane Ali ba ci ñoom imaam Malik bu ñu tënk ci nguuram amul kenn ku wax ni addu sham sama mu nga ca kaw arsh amul fenn fu ko alquran tuddee amul fenn fu ko xadiisu yonent bi sallallahu alayhi tudde kii ko wax moom mooy aadi ñas xaw ma fan la ko jëlee. te ci te képp ku mu ko mën a jëlee kooku amalu ko preuve ci alquran ak sunna addaarami mi la wax mu ne kunna wa taabi al awzaa'i mu ne kunna wa taabi'uun mutawaafiruuna naqulu anna allaha taala fawqa arshihi mu ne ñun taabi'uun yi moo ñi nga xam ne ñoom ñoo jàngee ci saxaaba yi taabi'i mooy koo xam ne gis na saxaaba dekk jullit ah faatu ci loolu kooku mooy taabi mu ne ñun ñëpp dañ doon wax ni yàlla mu nga ca kaw arsh amul kenn ku mës a wax leneen comme li aadi ñas wax am na yeneen i mbindeef yi nekk ca kaw arsh comme ñii ñëpp Ousmane mi ci radd bu muy radd Bishrul Marisi wax na lool mu ne ittafaqatil kalima min al muslimin an allaha taala fawqa arshihi mu ne dëppoo dafa am ci julli ñi ne yàlla moo nekk kaw arsh amul leneen lu fa nekk loolu aadi ñas yóbbul leen ko audio bi tas leen ko nama wax na ma wax ban preuve ci alquran ak sunna bu ñuy wane ni am na ca kaw aras beneen suuf soo xamante ni yeneen i mbindaafoon ñoo fa nekk yoo xamante ni ñoom ñu nga ca kaw loolu benn la bi nee na mbindaafoon yooyu ku nekk ci ñoom day wirdu salaatul faate suuf soosaa am na ay mbindeef yu fa nekk feesal ko amee melow doomu aadama waaye ci ay rawxaan lañ ñooña nag dañ leen a bind dara lu seen liggéey ñoom ñooñu lu jàng salaatul fatiha rek mooy seen liggéey. salaatul fatihi kan moo ko légaliser d' abord est ce que yàlla moo ko légaliser est ce que yonent bi salaa moo ko légaliser alquran ak sunna doo fekk fenn fu ñu diglee ñu wirdu salaatul fatihi la mu wax ci salaatul fatihi mu ne xam dañ naan salaatul fatihi boo demee dañ ne boo ko wirdee day tolloog nga jàng alquran juróom benn junni yoon loolu la ñuy wax ñoom waa léegi loolu ana preuve am ci alquran del leen baqara ba naasi fan la yàlla waxee benn yurdu salaatul faatihi day tolloog nga jàng nga wàccee kaamil alquran juróom benn junni yoon doo ko gis fan la ko yonent bi salaa salaam waxee doo ko gis fan la ko ñoom imaam Malik diglee doo ko gis xamuñu ko woon sax salaatul faatihi yonent bi salaa salaam ba mu fi jógee ba mu am dixième siècle ci la am ku ñëw ne yonente bi moo ma feeñu jox ma salaatul faate moom moo wax benn nit benn nit dong ñëw wax waaw yonente bi salaa sallam ba mu faatoo ba am dix siècle avant muy faatu mu ne diine ji man na sëkk akmaltu la wax akmaltu xam nga luy akmaltu al yawma ak maltu mooy baatu akmaltu ikmaal moo gën a for itmaam itmaam mooy li ngay mottali mais maltu mooy lu mat sëkk moo tax foofu alquran utiliser maltu waxul ak maltu la jëkk utiliser mu daal di koy dëgëral ci atmamtu ndax luxa boo demee ci luxa arab nee nañ maltu mu ngi jige ci ikmaal mooy loo xam ne dafa mat sëkk dara du ci yokk amul beneen luy amul beneen diine amul beneen yiw buy ñëwaat ci ginnaaw mooy loo xam ne tëj nañ ko mën na waaw yonent bi ginnaaw ba mu nee diine ji man na ba mu am ñaata siècle dixième siècle yonent bi ju yonent bi salaa faatu juge fi musul digle ñu wirdu salaatul fatih saxaaba yi Abu Bakr musul digle ñu wirdu ko Omar Ousmane Ali musuñu koo digle Imaam Malik bi nga xam ne tey ñun ñëpp Sénégal ci ngiram lañ tënk ndax xam-xamam musuñu musuñu koo digal musu koo wird ba dixième siècle nag yonent bi salaa salaam mu ngi dund ci premier siècle. yonent bi premier siècle la dund taabi ni deuxième siècle trois quatre cinq six sept huit neuf ba dix am ku ñëw ne yonent bi moo ma feeñu jóge na bàmmeelam jox na ma salaatul fatih nee na soo ko de day tolloog nga wàcce alquran juróom benn junni yoon mbokk yi ndax noonu la ñuy jëlee diine benn waaye bu jógee ñëw wax ñu ndax kooku lañu ñu war a gëm wala yonent bi ñu waxoon ni diine ju mat na la ñu war a gëm mu nekk ci alquran mu leer wala koo xam ne dafa ñëw ne yonent bi feeñu na ma jox na ma nee na lii day tolloog alxuraan benn boo ci wird rek day tolloog nga wàcce alxuraan juróom benn junni yoon te loolu fekk ju ko ci alxuraan te tamit bi nañu diina ji mën na waaw ndax kooku la ñu war a gëm wala yonent bi nga xam ne moo ne diina ji mën na tëj naa ko beneen bi moom aadiñes nee na nee na boo jàngee salaatul fatiha soo ko jàngee maanaam day jur ay mbindeef maanaam suuf soosu mu wax nee na suuf soosu mu ngi ca kaw arash nee na boo wirdee benn salaatul fatiha suuf soosu noonu day jur ay yeneen mbindeef. te yow saa yoo jàngee salaatul fatiha rek mooy saxal mbindeef yi nekk foofa foofa boo jàngee salaatul fatiha day saxal foofa ay mbindeef su ko defee na ci suuf soosu lañuy sax moo tax kon bëri na ku nekk fii di wirdo am njaboot fekk mi nga xam am na geneen njaboot te foofu ardu sama te salatul fatiha ko may te fekk xamu ko moo tax kon salatul fatihi maanaam ngëneelam lu rëy rëy rëy rëy la la hawla wala quwwata illa billah adiñas li nga wax foko jele jëlee yaangi wax ci yalla ak arash yaangi wax ci yalla ak arash comme lépp loo wax mu jëm ci arash fa yàlla yemoo ca kawam ak yàlla da nga ko war a indil tegtal indi ko preuve ci alquran sunna ndax yàlla ay mbiram ak fa mu nekk moom arash loolu kumpa la ñun xamuñu ko gisuñu ko comme loo ci wax dafa war am tegtal tegtalam immaa ci alquran immaa ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo wirdee benn salaatul fatiha loolu day jur ay yeneen mbindeef ca kaw suuf soosu. mu ne nag boo wirdee salaatul fatiha mu ne xaraf xaraf boo wirde ci salaatul fatiha day jur ay malaaka day jur ay malaaka nee na salaatul fatiha mooy jur ay malaaka salaatul fatiha eh, boo ko jàngee ba noppi moom day continuer jàng boppam bu ko defee nag guy continuer jàng boppam xaraf yi nekk ci salaatul fatiha yépp dañuy jur te te dana dana jur lu mat téeméeri Eh, xaraf téeméeri xaraf ak juróom-ñett moo nekk saatul fatiha yow nag bu fekkee danga nga koo jàng moom day continuer jàng boppam xaraf wu nekk dafay jur ay malaaka su ko defee mu mujj yàlla bind ci jàng gi nga jàng saatul fatiha mu jur lu mat téeméeri junne téeméeri malaaka ak juróom-ñett ndax téeméeri xaraf ak juróom-ñett la. la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi maa laaj mu dellu ci alquran ak sunna mu indil ma wax yi fan la koy fekk ci alxuraan sunna du ko mës gis ay wax yu ñu créé la rek waa léegi ñun ndax ñi dañuy jékki-jékki di gëm benn waaye buy ñëw di toog di wax di n'importe quoi ñu toog muy wax ñu noppi soo tontoo ñu ne da ngay diingat muy wax loo xam du ko teg fet na muy wax ci diine parce que nee na salaatul faate nee ay yiw la ay yiw yu nekk ci salaatul faate boo nee yiw rek diine dugg na comme diine soo koy wax ba tudd ay yiw da nga ko war a teg ci preuve preuve mooy lan mooy alxuraan ak sunna ndax alquran ak sunna ci la ñuy jëlee yiw alquran ak sunna moo ñuy xamal ni lii boo ko defee yiw la lii boo ko defee bàkkaar mais pas benn nit bu toog rek naan nangam boo ko defee yiw la nangam boo ko defee yiw la bidaa di gën a tasaaroo di dem nit ñi di gën a sóoru ci bidaa di ci gën a nuuru yàlla borom subhanahu mooy sàkk ay malaakam moo xam naka la koy sàkkee ñun waxuñu ko benn yoon. te fi nga teg sa xadis bi liggéey fi nga njëkk a déparé moo baaxul parce que da nga ne ca kaw suuf ca kaw suuf soosu mu nga nekk ca kaw arash loolu aay ma la indil ak xadis ak waru ak waxu borom xam-xam yi weddi na loolu ba pare nga saxal ni comme am na ñu gën a kawe yàlla parce que yàlla moom moo gën a kawe lépp moom moo nekk ca kaw arash ndax arash mu nga ca kaw juróom-ñaareelu asamaan comme boo nee suuf soosu mu nga fa mooy saxal nga ñu gën a kawe yàlla te loolu yàlla na ci yàlla borom subxanahu wa taala musal wax na ci waxam mu ne malaaka dañoo am junni junni lan euh, junni làmmiñ te malaaka mu nekk tamit di sikkar salaatul faatiha yool booba yëpp ñu jël ko ful ko jox la ko yow mi jàng salaatul faatiha te na ci malaaka yow malaaka moo xam ne téeméeri junne làmmiñ la xam ñii million ñii milliards ñii juróom-ñaar fukki junne kon loolu li ngay xam ci yool kenn xamu ni mu toll wax na ci ay téeméer wax na ay junni loolu dama indil xadis fan laa koy fekk amul benn xadis bu wër buy ñëw di wax naan malaaka yi am nañu nangam ci ay làmmiñ ak nangam ci ay làmmiñ loolu du ko fekk fenn fii laa leen ko waxee na ko indi fenn la ko dul fekk mu ne boo jàngee benn salaatul faatih benn salaatul faatih boo ko jàngee mu ne day tolloog juróom benn ci mbooleemi salawaat yi ci mbooleemi julli ñu julli si nabi salaa sallam bi ki boo ko jàngee wenn yoon juróom benn téeméer lay tolloo juróom-benn téeméeri junne ci mbooleem salawaatu gaa yi ñuy def ci salaatu ci salaatu fàtte noonu la ne leen xëppee ci ful ci malaaka yeeg jinne yeeg yeneen yi ci xaju nga jàng ko ñaareelu yoon ñaareelu ba tamit day ful day day nekk ñaareelu yoonu juróom-benn téeméeri junne saa yoo ko jàngee rek dafay dafay dafay dafay dafay fulaatu tollaat noona demeet noonu lay demee noonu lay demee ba mu jeex kon salaatul fatiha daal ngëneelam yàlla mi ñu ko jox dong dong dong dong moo xam ngëneel yi nekk saatul fatiha ana preuve am ci alquran ak sunna mbokk yi salaatul fatiha benn waay moo ñëw xëy na yonente bi salaa sallam jox na ma mbokk yi est-ce que diine noonu lañ koy jëlee est-ce que diine man alpha damay yeewu na yonente bi jox na ma rek gaa yi jël est-ce que keneen day yeew na yonente bi jox na ma rek gaa yi jël est-ce que ñun yonente bi ci kooku la ñu yónni wala yonente bi moom ci ay sam ba muy dundu yonente bi sallallahu alayhi ñu ngi ko war a topp ci lan ba dund lañ ko a topp ba muy dund yu mu fi waxoon ak ba muy dundu mu bàyyi ko fi yi nga xam ne da koo waxoon ba muy dund yi nga xam ne da digle ba muy dund yooyu la ñuy topp mais pas yoo xam ne ginaaw ba mu faatoo la maanaam wax yi à chaque fois day gën a jege tricage ñoom nag wax yi yëpp ñu ngi koy wax parce que ñu ngi koy wékk ci ñu ngi koy wékk ci lan ci ñoom baatin xam nga baatin mooy lan baatin mooy lépp lu daganoon yow mën na la araam yow ñu wékk ci baatin gis nga mbokk yi xam-xam bu gaa di woote ay xam-xam baatin ay caaxaan la lu ci ëpp ay njibarkat lañ lu ci ëpp naa la ay baatin dama am baatin loolu baatin la ay njibarkat ak i tappalekat koo fekk muy takk lu ëpp ñeenti soxna nga waxam moom naa la baatin day caaxaan amul fenn islam ñëwul di tàqale diggante baatin ak zahir islaam ñëwul di tàqale diggante charia ak xaqiqa déedéet ñoom ñaar ñoo mun a ànd exemple laa lay jox booy julli kabaar yi ngay def jàng fatiha ruko bi sujoot loolu zahir la lu feeñ la zahir la charia la yàllaa ko digle lu feeñ la waaye est-ce que julli bi ngay julli yàlla rek a tax loolu baatin la loolu xaqiqa la loolu sa diggante ak yàlla rek la yéen ñaar yéen ko a xam ndax yàlla moo tax ngay julli wala yéen yaa ngi yàlla rek ko mën a xam loolu baatin la comme gis nga munul dem charia ak xaqiqa ñooy takk ñooy ñooy dend benn munul dem bàyyi sa borom waaye caaxaanukatu tey day ñëw naan la yéen ay nitu charia ngeen ñun ay nitu baatin lañ quoi ay nitu xaqiqa ñun bu ñu nee takkal ëpp ñeenti jabar ñun am nañu droit indi beneen jaamu yàlla nangam nangam lépp boo xoolee ci ay shayatin ñenn ñi ay seetaane la ñuy gént naa yonente bi laa gént ñenn ñi ay seetaane la ñuy gis naa yonente bi laa gis yonente bi dafa ne soo ma géntee ci soo ma géntee mën nga gént borom xam-xam ni ñu ko firee mooy soo géntee yonente bi ci ay melokaanam exemple boo géntee benn waaye bu takk chaîne ñëw naa la man la bi est que kooku yonente bi la borom xam ne nee nañ bi dégg-dégg duñ koy déggee baaxul boo géntee yonente bi ci ay melokaanam ca sikkim ba ca leeraay ba ca xeesaay ba ak nu mu mel gént nga yonente bi exemple boo géntee yonente bi mu takk kurus ci baat ne la maa yonante bi géntoo yonante bi ndax yonante bi musul yor kurus seytaane nga gént wala leneen nga gént comme loolu faa ñu bàyyi ko xel comme ay mbiru baatin ay tiaxal la amul fenn fu yàlla waxee ci alquran amna am na ñu ma jox waa baatin am na ñoo xam ne jagleel naa leen nangam ay waa baatin lañ doo ko fekk baqara ba naas loolu lépp tapale kat ñom ñokay ñoom ñoo koy def islam ci sharia lañu teunk ci sharia lan lay xadis bi wax xadis bi nee lu ñuy njëkk a atte jaami yowmal qiyaam moom mooy julli julli lan la charia charia la de est-ce que nee na lu ñuy njëkk a mooy waa baatin dafa julli julli bu baaxul du baax comme charia bu baaxul sa mbir du baax boo demee suratul muminuun qad aflaha al muminuun yàlla ba muy wax ni jullit ñi texe nañ lan la wax ñi nga xam dañuy taxawal julli ñi nga xam dañuy joxe azaka loolu la wax. yàlla na ñooñu ñooy donnu aljanna ya kawe ya comme yàlla aljanna mu ngi ko dénk waa sharia alquran yàlla dafa ne waa sharia laa ko jox yàlla mu ne am na benn baab am na benn bunt bu nekk aljanna bu tudd rayyaan ñu fay dugg ñooy woorkat yi woor lan la sharia yàlla nee na ñoo fay dugg fan la yàlla waxee waa baatin ñooy dugg buntu aljanna sàngam ñi leen di wax loolu yëpp dañ leen di nax. ku ci bëgg a takk lu ëpp ñeenti jabar bëgg a njaaloo bëgg bëgg a caaxaan ñëw naa la man baatin man baatin la am naa droit takk lu ëpp ñeenti jabar day caaxaan. koo xam ne day toog naa jox nañ ma benn wirdu boo xam ne boo ko defee nangam nangam jël wirdu yi di ko jaay di ko wecc naan nangam lay wecc loolu ay caaxaan la. comme mbokk yi li ma leen di wax mooy salaatul faatihi doo ko fekk ci alquran doo ko fekk ci sunna yàlla légalise légaliser wu ko yonent bi salaa salaam légaliser wu ko benn waaye ci dixième siècle boo ñëw xëy na yonente bi feeñu na ma jox na ma ñu bëgg cee tabax jaamu yàlla jaamu yàlla noonu lañ koy tabaxee wala jaamu yàlla mooy lu nekk ci alquran ak yonente bi ba muy dund la mu digle woon loolu moom mooy jaamu yàlla comme mbokk yi ngeen xamee ko noonu comme lu aada ñes wax ni ay neen la amu ci benn preuve amu ci benn tegtal wallahu aalam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad eh, audio yi nag boo leen ko mënee tas parce que fan yi dama génn ci groupe yu daanaka groupe yëpp dama cee génn parce que dama xamoon tënku waaye lii mënu ma see ñàkk tontu su leen ko mënee partagé ci gars yi ñu jëriñu incha allah barakallahu fiikum